salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV bienvenue mercredi 4 août war a waxtaanee li nga xamante ni actualité la bi ci gën a fës doonul kenn ki nga xamante ni moo di kilifa moom kilifa lâché par ses pairs professeur Cheikh Omar Diagne moo ko wax Y'en a marre dégage toutes les responsabilités du mouvement et rappelle que les supposés actes n'engagent que kilifa maanaam li nga xamante ni moom la kilifa di def titre personnel la maanaam engagé wul li nga xamante ni moo di mouvement Y'en a marre communiqué nag mi ngi génn démb 3 août Y'en a marre nee na acte yi nga xamante ni moom la kilifa def moom la engagé te ñaari vidéo yi nga xamante ni moom lañ gis kilifa muy def trafic de visa ak xaalis bi nga ko ci jox engagé wu leen te moom kilifa dong la engage moo tax bépp responsabilité boo xamante ni daal euh, kilifa def na ko wala jël na ko ñoom dañuy toog di seetaan loolu du samay wax waxu Y'en a marre la ndax communiqué boobu waaye Y'en a ñoo ko génne démb ci euh, euh, démb ci mardi bi. affaire Lawbe Ndiaye ba tey ci la ñuy nekk la famille déroule le film de l'arrestation du présumé meurtrier et ses complices maanaam famille Lawbe Ndiaye dañoo dem ci kër sëriñ boobu leen li nga xamante ni moom moo ci xew waaye ak ñi nga xamante ñoom la àndaloon pour def jëf ci ñaaw jooju ñoom ñëpp yoon teg leen loxo waaye li nga xamante moom moo ci gën a metti famille Lobé Ndiaye ba léegi ñi ngi regretté na ko ak ses complices ndax Lobé Ndiaye bu ñu déggee témoignage yi nga xamante ni famille def na ko jàmbaar la woon jigéen la goo xamante ni une femme de fer boo xamante lépp loo xamante ni góor koy def ma ngi ko doon def doonoon jigéen goo xamante ni doonoon daan dooleem ñu daal di ñu war Fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor la son programme Augustin Sénégal man uti ndam li tourne autour de 10 points. Candidature à l'élection présidentielle. La Fédération sénégalaise de football, le président sortant, Maître Augustin Senghor, a dévoilé ce mardi son programme pour le prochain mandat à la tête de l'instance, dont le scrutin est prévu le 7 août. maanaam ki nga xamante ni moo di euh, Maître Augustin Senghor ki nga xamante ni actuellement moo nekk président Fédération sénégalaise de football maanaam moom génne na 10 points yi nga xamante ni moom moo war moom la bëgg Sénégal yi xam ko même Maître Augustin Senghor loolu nag mi ko génne démb ci mardi bi euh, moom mu war a mu war a jàmmaarloo ak ki nga xamante ni moo di Madi Touré Madi Touré nag boobu ba léegi xam ngeen ni mi ngi ci sous raison bi dem na ci village yi fu nekk ma ngi fay dem moom Madi ture gëm li nga xamante ni moom euh, expérience am may na ko ko ak li nga xamante ni def na ko ci wàllu football pour mën a jël loolu nga xamante ni moo di fédération sénégalaise de football ki nga xamante ni euh, moom mooy mais euh, El Hadji Diouf membre de l' association des internationaux sénégalais hier mi ngi nekkoon ci nga xamante ni moo di ci diwaanu Thiès benn dëkk ñaari gaar El Hadji Ousseynou Diouf nag moom euh, ku ne xam na ni moom football dafa dafa dafa dafa dee ci moom Madi se réclame candidat du peuple alors que Augustin waaw moom nee na moom moom moom fédération sénégalaise de football maa di moom nee na candidat la boo xamante ni peuple bi ñoo ko bëgg te sénégalais yi ñoo ko safoo loolu du samay wax waxu maa di Touré la. bi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee maanaam mooy ki nga xamante ni moo di euh, Pawlish Mbaye ak 10 000 problèmes ku ne xam na ni 10 000 problèmes génne na fi euh, barki démb def vidéo daal di saaga ki nga xamante ni moo di Bijou Ngoné waaye nag ba mu defay vidéo ba pare dafa génnaat defaat vidéo baalu ki nga xamante ni euh, moo di Bijou Ngoné démb nag ñu demoon fa seeti ko mu daal ni ma lépp loo xamante waxoon naa ko bijou maa ngi jéggalu que sama xarit la sama sama sama jigéen la te sama nit la waaye problème boobu moo xamante ni moo amoon sama diggante ak moom du kenn moo ko lal ku dul Pawlish Mbaye nee na Pawlish mooy saytaane gi Pawlish mooy def lu affaire u ñàkk faydaam yooyu muy def rek di ko ci takkal di ko ci boole waaye moom moog bijou ay lañ te bijou la mi ngi jéggalu bijou bu baax waaye nag liñ ci li ma gën a jaaxal ci vidéo boobu nga xamante ni boo duggee biir Equivox TV da nga ko fa fekk maanaam ki nga xamante ni moo di 10 000 problème dafa menacé Pawlish Mbaye nee na fu mu mu taseeg Pawlish Mbaye na jàpp ni Sénégalais yi nga xam ni Pawlish Mbaye ñàkk na bakkanam parce que lu Pawlish gis rek moom moo ko def waaye fi ñu tëjee di naqar ak tiis ki nga xamante moo nekkoon sunu papa nekk à la RTS wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu papa sunu xarit kooku nga xamante ni euh, yàgg nañ koo gis ci écran télévision bu RTS moom moo ñàkk bakkanam di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jugee sunu papa jooju di Ous El Hadji Ousmane Gueye n'est plus maanaam ki nga xamante ni moo di El Hadji Ousmane dafa ñàkk bakkanam démb di mbokkam yàlla na ko yàlla yërëm fa mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jugee ci barke Seydina Mohamed ñaan na la ñu moom la euh, ni moo di sur l'axe Ndioum Guédé l'un des chauffeurs euh, ñaan yàlla yërëm leen ci barke Seydina Mohamed Mohamed suuf daal di sedd seen kaw inscription sur les listes électorales Ndeye Ndack aux xeex dafa war a ànd ak jëf maanaam ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndack génn daal di wax nee na xeex bi dafa war a ànd ak jëf ñu fi nekk rek di xeex te demuñu bindu ci li nga xamante ni moo di liste électorale yi mu doon loo xamante ni waxu Ndeye Ndack la ci info bi nga xamante ni jot nañ ko ci suba si